أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene dellu si ak yéen ci seen alburda tey ci ñeenteelu bunt bi lañu toll ci mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu ñeenteel bi di wax fii mawlidihi juddu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral lii lépp ñuy tuddee gàmmu mu ni abaana mawliduhu an tiibi unsurihi yaa tiiba mubtadi'an minhu wa muxtatami mu ni abaana biral na mawliduhu juddu sallallahu alayhi wa sallam an tiibi unsurihi ci teeyuk cosaanam maanaam ci selluk cosaanam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndey ak ci baay yépp dafa sell mu ni yaa tiiba mubtadiin woonaa teeyug aji tàmbali koo xamante ni maamam ja njëkk dafa set wecci sell lool minhu ci moom wa muxtatamin ak a mujj ñi firi burdu nag dañuy wuute ci mubtadain wa muxtatamin am nañu ni mubtadain moo ngi ci namm suñu maam aadam la tàmbale suñ maam aadam wa muxtatamin ba ci seydna abdallah mu ni ñoom ñépp dañoo sell am na ñu ni ñu ngi ci namm mubtadain mooy banu hashim li commencé ci hashim ibnu abdul ci hashim ibnu abdul manaf ba ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ala kulli xaal moom an lim ni an tiibi unsurihi yaa tiiba mubtadiin minhu wa muxtatamin moom daal tàmbaleem teey na tëjëm tamit teey na mu ni bis bi yonent bi juddoo yawmun tafarrasa fiihi alfursu annahumu qad unziru bi xuluuli lbu'si wanniqami mu ni yawmun bés la boo xamante ni tafarrasa jàqe na tiit fii ci bis boobu yonentu bi judd sallallahu alayhi wa sallam ñan alfurs waa faris mooy persien perse yi ci jamono bi ñooy waa iran nguur gu mag lañu yoroon mu ni annahum naka ñoom xadd ca dëgg unziru xuppeef na leen bi xuluulil bu'si ci wàccuk musiba mooy ak wañsu dañ koy wax ci olof waaye mooy njàq rek musiba rek wan niqami ak mbugal ñoom kat avertir nañ leen ci guddi gi sallallahu alayhi wa sallam juddoo ni leen nag ah musiba ngi leen di attaqué mooy seen état ngi daanu buur bu tëdd ba guddi mu gént gis ni état ma ngi daanu kooku gént na musiba moo tax mu ni bés bi yonent bi juddoo nguuri caaxaan yépp dañoo rëng-rëngi kon dafa juddu rekk leer gi jolli mu ni wabaata iwaanu kisra wa huwa munsadiun ka chamli asxaabi kisra gayra multaimi mu ni wabaata fanaan na guddi gi sallallahu alayhi wa sallam juddoo iwaanu kisra paleb kisra ba kisra mooy bépp buur boo falu rom buuru rom yi dañ leen daan tuddee kisra kon turu Kisra tur la boo xamante ni pour ku nekk buur la comme niñ daan waxe fii suñ buur yi ku falu kajoor ñu lay wax dammeel wala ku falu am na yeneen wilaya ñu leen doon wax comme ay buur baag yooyu waaye comme ça kajoor ku fi falu woon dammeel da kajoor lañ la daan wax moo tax ku musaan falu ci jamono boobu nekk Rom dañ lay wooye Kisra niki noonu ku musaan falu nekk Éthiopie ñu la daan wooye Najashi mu ni nag guddi gi sallallahu alayhi wa sallam juddoo nguur yëpp a rëng-rëngi Perse yi seen état dafa rëng-rëngi Rome yi ak ñeneen ak ñeneen mu ni wa huwa te mbir moom pale boobu munsadiun aji toj la pale bi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo dañu waxoon ni bari woon na ay balcon amoon na vingt-deux balcon douze yi dafa fàq ci guddi gi sallallahu alayhi wa sallam juddoo mu ni kacham li asxaabi kisra gayra multaimi niki noonu tamit la mbooloom Kisra ma tàqaloo te xayra multaimi te ñoom te mbir moomu duñu dajawaat day nuróole rekk tasaaroo gi nga xamante ni pale Kisra tasaaroo na ko muy pale ba ak njabootu Kisra maanaam ay dagam ak ñi ko séq ñépp ngir lan juddu sallallahu alayhi wa sallam mu ni wannaaru xaamidatul anfaasi min asafin alayhi wannahru saahil ayni min sadamin wannaaru seen sawara sa muy sawarab waa kisraaya ndax ñooñu dañ daan taal sawara boo xamante ni du fay mukk day tàkk ay ay ati at comme rek Amérique day toog ñaata courant du fa coupé gis nga bu fa courant coupé dafa nekkoon lu rëy day toog at yu bari courant dafa coupé bu ñu xëyee xëy courant coupé day nekk actualité waaye nag bokkul ak suñ Sénégal gii nga xamante ni léeg-léeg courant di fi coupé kon bu courant coupé du nekk actualité ñii nag seen sawara sa daf daan tàkk ay at at yu bari mën na ëpp sax téeméeri at mu xëy xëy fay kon nag am na lu xew moo tax mu ni wannaaru seen sawara sa xaamidatul anfaasi aji giim ji ay nokki la maanaam sawara buy tàkk di jër-jëri kon mi ngi noyyi bu baax bu demee ba giim nag dara dootuñu ko gis saxaar rek a fay nekk lu tax mu def loolu min asafin ngir njàqare ngir njàqare juddu sallallahu alayhi wa sallam wan nahru seen dex ga nga xamante ne daan daw tout le temps am na ñu ni nahru furaat la saahil ayni aji dal ji bët la mooy bëtu ndox buy daw uyunul ma bëti ndox yi xam nga dafay daw ndox day daw loolu lañ ko xàmmee ndoxum ndox yi dex yeeg yii nii di daw bu nee tekk nag ah am na lu xew géej gi ni ndox mi dawee bu jékki-jékki woon ni tekk yëngootul kon dañ naan lii kéemtaan la yii nag xew te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dogo juddu yónneeguñ ko duñ ko tuddee mu'jiza mais ay irhasat lañ koy tuddee yoo xamante ni day lalal risaala bi bëgg a ñëw mooy al irhasat bu fekkonte ni nag ginnaaw bi ñu yónnee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam la xew dañ koy tudde al mu'jizat waaye lii xew ni ay irhasat la moo tax mu ni kon wan nahru seen dex ga saahil ayni aji dal ji jëmm la min sadamin ngir njàqare sa wara sa gim na ndox ma doon daw nee na tekk dawatul ah kon musiba am na de mu ni wasaa a saawata an gaadat buhayratuha wa rudda waariduha bil gaythi xiina dami mu ni wa saa naqari na saawata giir bu ñuy wax giiru saawa saawa ab giir la bu dëkkee woon foofu lu leen naqari an gaadat ba mu ngiisee buhayratuha seen seen dex ga dex gañ daan roote ji dafa ngiis bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo mu ni wa rudda te di dellu waariduha aji aji root si xiina dami jamono ba mu maree lum delloo bil xay si ci mer day mer lool ku rëbi na tëj gox ba nga dëkk nga dem ci dex wala ci beneen dëkk di fa roote ji dem fekk rëbina tëj foofa sooy ñibbi di nga mer moo tax mu ni wasaa asaawata an gaadat buhayratuha wa rudda waariduha bil gaysi xiina dami ka anna bin naari ma bil maai min balalin xusnan wa bil maai ma bin naari min darami bayit bi nag nim ko ràbbee dafa xaw a compliqué danga naan rek ka annama bil maa'i min balalin bin naari wa ka annama bin naari min daramin bil maa'i yooyu yépp xusnan ka annama bil maa'i dafa mel ni la nekkoon ca ndox ma min balalin ci tooy tooy min bin naari moo nekk fa sawara sa wa ka anna ma bin naari dafa mel ni la nekkoon ci sawara sa min daramin ci takk-takk bil maa i moo nekkoon fa ndox ma lim la bëgg a expliquer rek mooy fa fa ndox nekkoon daan tooy nit ña daan fa kii muy dafa root muy tooy xepp soo fa demee jeexitalu tàkk-tàkk nga fay fekk day mel ni sawaraa fa newoon fa sawara sa nekkoon daan tàkk soo demee daa wow koŋ dafa mel dafa tooy xepp mel ni ndoxa fa newoon maanaam ndax fay sawara sunu xëpp ndox xam nga sawara ak ndox moom ku ne xam na ni ay noon lañ loolu lay nuróole rek loolu lépp lu ko waral xusnan ngir njàqare loolu lépp xusnan njàq gu ñu njàq ci juddu sallallahu alayhi wa sallam mu ni wal jinnu tahtifu wal anwaaru saatiatun wal xaqu yadharu min maanan wa min kalimi mu ni wal jinnu jinne yi tahtifu ña ngay haatif haatif mooy ay sawt maanaam ay son yooyu dégg te gisoo seen jëmm mooy mooy haatif looloo tax ñu tuddee téléphone portable yi ñuy gàddu alhaatif alhaatiful mahmul ci arab moo tax mu ni wal jinnu jinne ya tahtifu ña ngay haatif wal anwaaru ta leer ya saatiatun ma ngay jolli wal xaqu dëgg daal yadharu ma ngay feeñ min maanan ci maana wa min kalimin ak ci ay baat min maana lum ci namm min maana mooy leeru seydina muhammad bi nga xamante ni mooy jolli min kalimin lum ci namm mooy jinne yi nga xamante ni ñooy haatif mu ni min maanan wa min kalimin ci juddu sallallahu alayhi wa sallam te booba nit ñi yëguñu ci dara bu ko nit ñi yëgoon kon wuute sax du am ci juddu sallallahu alayhi wa sallam waaye juddu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wuute am na ci comme juddu nitu yàlla yépp nitu yàlla boo gis juddoom mën naa am wuute waaye buy génn àdduna wuute du ci am mukk ndax day fekk ñépp commencé yittewu ay mbiram suy juddu nag kenn doo xam ndax kii boroomi mbir la waaye buy génn àdduna ñépp xam ni kii moo nekkoon boroom mbir mi moo tax mu ni kon dëgg ma ngay feeñ ci maana ak ak kalim baat leeru ndax leeru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni amu wa sammu fa i'laanul basaa'iri lam tusma wa lam wa bariqatul inzaari lam tusami mu ne amu dañoo selmaxa ñan waa quraysh yéeféer yi kuffaar yi wasammu ñu daldi tëx fa i'laanul basaa'iri biralug mbégte ni leen di informer ni leen mbégte mi ñëw na lam tusma ñoom dégguñu ko wa bariqatul inzaari ak melxat gi leen di avertir gi leen di xopp lam tusami ñoom séenuwuñ ko maanaam séenuñu ko gisuñu ko riir mi bari bari lépp ak xew-xew yi yépp ñoom seeni bët gisu ko ñoom yéefeer yi ñi nga xamante ni gëmuñu woon te lañ daan jaamu doxut wasammu ñu daldi tëx riir may bari jinne yaa ngay haatif di yuuxu di jóge asamaan di wàcc ndax dañ leen faa dàqe ñoom yëguñu ko leer gaa ngay jolli ñoom yëguñu ko moo tax mu ni fa i'laanul basaa'iri al basaa'ir mooy ay mbégte mu ni fa i'laanul basaa'iri biralum mbégte yi lam tusma déggeefu ko wa bariqatul inzaari ak melxatu xuppe melxatu avertir waaraate lam tusami séentoofu ko kenn séentuu ko ndax ñoom yëguñu lu xew min bacdi ma axbara al aqwaama kaahinuhum bi anna diinahum al mucwajja lam yaqumi mu ni min bacdi ma ca ginnaaw ba nga xamante ni axbara xebaar na al aqwaama nit ña ku leen xebaar kaahinuhum seen jibar ya bi anna diinahum naka seen diine jii muy waa Quraysh rek ñooñu doon jaamu ay xërëm al mucwajja jadi aji jeng lam yaqumi saxut jine ji daal taxawatul waxan nañ leen ko nag bu yàgg ni leen nag def na leen folli leen di folli mu ngi ñëw waaye ñoom ñi ngi ko doon xaare côté bu nekk ndax seen ji bari ay léeg-léeg dañ daan am yu ñuy gis ay léeg-léeg nag doonte yu ñuy gis sax seytaane moo leen koy informer yu ci bari seetkat ak leneen ak leneen li muy gis seytaane la leen informer di jinne yi dañ leen daan dañ leen di xamal benn dëgg ñu wax benn dëgg bi yokk ci junniy fen waaw jinne noonu la ñuy def di moo tax lépp lu jinne am ak kii baal mu dem min baadi ma axbaral aqwaama kaahinuhum seen jibarkat yi ñu def leen daan informé ni leen am na yonantu buy ñëw yi fi nekk yépp dina fi jóge bi anna diinahum naka seen diine jii muy jaamu ay xërëm al muwajja jadi aji jeng lam yaqumi saxut du sax du dem wa bacdama caayanu fi l ufqi min shuhubin munqadatin wafqa ma fi l ardi min sanamin mu ni wa bacdama ginnaaw ba nga xam ne caayanu jàmmaarloo nan ñan ñooy jàmmaarloo jinney jinney saytaane ya fil ufuqi ca goxi asamaan ya min suhubin ci ay jum am nañ ko tuddee ay biddiw waaye ay jum ñu boroom moo kere ay jum yoo xamante ni da leen di dàq ñoom sayatinul jinni yi sayatinul jinni yi nga xamante ni dañ daan yéeg dem asamaan di fa jël ay information bi yonentu yàlla isa juddoo lañ leen interdit ba ñetteelu asamaan bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo lañ leen fa dàqe ñu jóge fa nag dootu ñu demati mukk waaw parce que bu njëkkoon dañ daan dem di sàcc ay xabaar suñu boroom wax na ko ci alquran qul uhiya ilayya annahu istamaa naan wa anna kunna naqudu minha maqaida lissamci faman yastamic alaana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asarrun urida bi man fi l ardi am araada bihim rabbuhum rashada mu ni ñoom dañ daan dem toog di sàcc xabaar waaye bi yonent bi juddoo faman yastamic alaana yajid lahu shihaban rasada ku ku ku dem rek ginnaaw bi yonent bi juddoo boo demee fekk fa jum bu la dàq jumu sawara jum nag buñ ko waxee ci wolof xam naa suñu mbokk baykat yi ñoo koy gën a mën a comprendre mooy gattax bu ñu takk bu ñu dajale takk ko taal ko dañ ci daan lokkat di ci taal ay sébb yooyu yëpp ay vocabulaire ñi bay ñoom ñoo ko gën a comprendre mu ni wa baadama aynu ginnaaw ñoom kon soyat soyatinul jinni yooyu ginnaaw ba ñu jàmmaarloo ci goxi asamaan yi ci ay ay jum mun qaddatin yoo xamante ni ma ngay fàq wafqama dëppoog la nga xam ni fil ardi nekk na ci suuf min sanamin ci ay xërëm niki noonu tamit xërëm yi nekkoon ci kaw suuf noonu la commencé di daanu seen mbir a ngi bëgg a jeex ndax sallallahu alayhi wa sallam juddu na mu ni xatta gada an tariqi alwaxyi munhazimun min alshayatini yaqfu ithra munhazimi mu ni xatta gada ba ñu mujj an tariqi alwaxyi waliif yoonu waxyu bi munhazimun muy ñunu ñuñu ñu ñu dàq al inhizam mooy armée boo xamante ni dañ koo gañe ba mu wone ginnaaw di daw ginne yi nag ba yonent bi juddoo lañ leen wëtal ci asamaan munhazimun min ash-shayatin yaqfu ñuy xeeñtu isra munhazimin jeexitalu ku ñu dàq mooy ku ñu gañe lim bëgg a wax mooy jinne yi nañu bàbbeekoo asamaan di daw kuréel bu jàll beneen kuréel topp ca yaqfu isra munhazimin ay ku fu mbooloo rombe rek meneen meneen mbooloo rombaat daw ba ñu jeex tàkk ca asamaan maa ngi melal seenu daw googu ka annahum haraban abtaalu abrahatin aw askarun bilxasa min raxatayhi rumi dafay nuróole jinne yi daw gi nga xamante ni moom lañ doon dawee asamaan daw gi nga xamante ni moom lañ doon dawee asamaan mu ni ñoom daal comme jàmbaari abraha ya abtal al batal mooy jàmbaar abraha mooy ki nga xamante ni moo ñëwoon màkka bëgga màbb bëgga màbb kaaba waa màkk gi ak histoire ba na mu guddee te loolu mu ngi xew ci at mi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo li ko waral mooy benn naar kii abraha dafa ni waa màkka ñoom nit ñëpp dañuy dem di aji màkka kon moom nay tabax ak ak kaaba màkka ak kaaba bokk fële ca yaman nga mu nekk bu aj jotatee ñu bàyyi fi kaaba arab yi ñëw aji si sama kaaba gi man abraha benn waa màkka dégg ko dem ba ca kaaba ga abraha tabax mu dem fa duus abraha ñu wax ko ko mu mer lool takk armeem dem day màbbi kaaba gi nekk waa Quraysh kaaba ga waa Quraysh day màbbi kaaba màkka gi cala la ñuy wax amul fiili ci la alam tara kayfa wàcce alam tara kayfa fa ba ci la wàcce waaye moom lay nettali bokk alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yajal kaydahum fi tadlilin ba saar wa jeex si alxaaji Maalik nee na yaa wayla abrahatin dallat makidatuhu isma yasuuqu fuyulan qasida alxarami wa fi alam tara maa yasfi sudura liman ara lahu damaun fi urfi xaalihimi ca xilaas mu ni kon ka annahum dafa mel ni ñoom haraban ci daw gi ñu daw ñoom jinne yi abtaalu abraha comme jàmbaari abraha ya ba leen picc ya dee dàq ak ay xeer ñuy wane ginnaaw di daw mu ni sax déedéet wala aw askarun dañoo mel ni ab armée mooy armée ba tey armée Quraysh bi ca gazwatu Badr boo xamante ni ab askarun rumiya boo xam ni sànni nañ leen bil xasaa ci ay jembaraay xasaa mooy xeer yu ndaw yu ñaw yooyu min raaxata yi tukkee ci ñaari ténku yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ca gazwatu badr yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam daana sànni moom la alquran di xama ramayta is ramayta walakin allaha rama loolu lay nuróole ba neen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànnee ni ñu mel moom lay nuróole tamit ak jinne ya ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo nañu leen dàqe asamaan mu ni nabzan comme tamit sànni ba tey geneen sànni lay nuróol muy bu yonentu yàlla yunus nabzan bihi baadama tasbixin bi batnihima nabzal musabbixi min ahshaai multaqimi yonentu yàlla yonentu yàlla yunus moom la jët jën wa wannoon baleen ba moo tax mu ni mu sàn nabazahu nabzan ngay wax baada tasbixin maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayit bi mu wax ci kaw ni aw askarun bilxasa min raxatayhi rumi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànn xeer yi nga xamante moom la daan jël ci loxoom di ko sànni kuffaaru quraysh yi dañ daan sàbbaal ci loxoom avant mu leen di sànni comme na yonentu yàlla yunus daan sàbbaale ca biir jën wa ba ko baleen bi man ba ko baleen bi wannee ba ko baleen bi wannee nam daan sàbbaale ca biir jën wa naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin xeer yi tamit dañ daan sàbbaal ci ténk yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam avant mu leen di sànni moo tax mu ne nabzan bihi baada tasbihin bi batnihima yaani bi batni kaffayhima ci tenqu ñaari loxoom nabzal musabbixi comme sànnik aji sàbbaal ji min axsha i multaqimin ci balketu aji wann ji axsha mooy li nekk ci diggante ñaari faar maanaam kon mooy ay butit wala mbàq ala kulli xaal ci wuuteeg ulama ul luga yi mu ni noonu la lay nuróole sàbbaalu jën woowu ak sàbbaalu ak sàbbaalu yonentu yàlla yunus ba ko jën wa wannee min ahshaai multaqimin ci balgetu aji wann ji muy jën wa moom la alquran di wax ni faltaqamahu alxuutu wa huwa mulimun fa lawla annahu kaana min almusabbixin la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasun suñu boroom nee na bu fekkantenu woon dafa nekk di sàbbaal ci biir jën wa ca biir biiru jën wa dana sax foofu ba ilaa yawmi yubaasuun kon juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci xew ci ay irhasaat kenn mënu ko jeexal kenn mënu ko nettali loolu lépp nag dafay lalal mission bi nga xamante ni moom moo war a ñëw ndax caaxaan yi nga xamante ni moom moo amoon yépp dafa commencé woon bu nekk di am problème bu nekk di am problème ndax li risaala muhammadiya bi di waaj a ñëw kon foofu la bunt bi jeexee ñu leen di jox deg dig daje ba suba ak jàmm insha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu